ngi juddu atam junne ak téeméer ak juróom fukki at ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi génn àddina ci atam junne ak ñaar téeméer ak fanweeri at kon Cheikh Ahmad Tidiane mu ngi dund ci maas ak fukk ak ñaar nag wali waxoon nañ ca xarnul xamit ba gàddaay gi amee juróomi téeméer ne xaatimu lawliyaa dana juddu ci xarnu saniya xarnu booba kenn juddu ca di woote boobu maqaamam lu may Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon nañu ne faas lay feeñ kenn génnut faas di woote boobu maqaamam lu may Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu waxoon nañ ne kuñ nag koo ñu di ko weddi ci dëgg gi nga xam ne moom la dikkee loolu itam ñëpp janoon nañu moom kon ñu ne amuñ sikk ci ne xaatimul wilaayati Muhammad yeeti moo di Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mi ngi juddu ci ayni maap ci atam junne ak téeméer ak juróom fukki at ci juróom-ñaari atam la wattu alxuraan fukki at ñaar fukki atam ak benn dajal na xam-xam yëpp ba di def taalif di samp majlis di jàngale di joxe fatwa di tontu fóode yi seen mboole laaj ci penku ak sow ba ñëpp daje ci ne moo raw ci ñun jamono wala kenn ko ci te xam-xamu zahir rek mu saba soobu yoonu suufiyanke yi bëgg a xam yàlla topp na ay sëriñ yu bari jàpp na wér do xaadir yi jàpp na wér do saadir yi jàpp na wér de yàlla may ko fatful akbar mu janoog yonent ci lu kii daay yonent jox ko wérdo yi nga xam ne ñun moom lañuy ñuy jëriñoo tey ba nga xamee ne gàddaay gi am na junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukki ak juróom-benn te ba gàddaay gi amee junne ñaar téeméeri at nag ñu soog ko mottali lu réew muy ñetti téeméer téeméeri astaxfirullah téeméeri salaatu ala nabi téeméeri laa ilaha illallah yonent mi ko jox wirdo dadul na ko ci ngëneel yu bari warul loon na ko ci yëf yu limu yoo xam ne lépp gis nañ gis nañ ko léegi ci jamonoom ko dee jamonoom yépp nangul nañ ko amatu ñeel ko nekk ay taalibeem ba ci Maghrib ci Jasaayir ci Tunis ci Misra ba mu demee Haramayni Sharifayni noonu mu dellu si faxaat ci faas wërda bi tasaaroo bi tasaaroo ci dundam ba mu génn àddina jaatam junne ak ñaar téeméer ak ñett fukki at fekk na Cheikh Mamadou Xaafis ci Mauritanie dem fekki ko foofu ca Faas jël ci moom wér-dong wi gannaaw bu mu jàngee moom ba dajal xam-xam yi ba nekk xaafis ci xam-xamu zahir mu dem sax ci Cheikh Tidiane ba Cheikh Tidiane hebal ko def ko mu xaddam ne ko boo demee nag bul feeñal dara lu may ba ko yàlla feeñalee bi mu ñëwee waxut ne am na benn wérdo xam-xamu zahir lay jàngale da ko yàlla xamal kashfu moo ñëw rek ne ko jox ma ci li nga indaale ci sa tukki mi mu ne ko téere yi laa indi woon mi ngi loo ci bëgg fabal mu ne ko waxuma loolu mbóot mi nga jëlee faas Cheikh Ahmad Tidiane jox la ko ne la bu ko feeñal lu may ba ta ko yàlla feeñalee laa wax mu xam ne mënatu ko nag mu may ko wirdo ci kanam ñëpp ñëpp ne ndeke sëriñ bi mi ngi lii mbooloo ma yëpp daal di jàpp wirdo guddi googa amul benn néeg bu des ca gàdd ga lu may wirdo Tidiane Afrique Cheikh Modou Xaafa Cheikh Modou Fall ci taalibeem la bokk Seydi Modou Fall moo jëkkoon a jox Cheikh Omarul Fouti yi wirdu Tijaan li nga xam ne moo ko indi ci ñun ñun ñun ñi Cheikh Omarul Fouti yi ñu jàppee ci Cheikh Modou Maodo Fall moo tasaare wirdu yi fii ci Sénégal ba ca réew yi Awsa comme ajee Makka daje fa Seydul Xaari muy xalifa cheikh mu jàpp ci moom kooka nag moo ko jotal maqaama bi mu jot ci yoonu Tijaan ba mu dellu si fii ci xalifa cheikh Ahmad Tijaan ngoo xam ne amul benn xëcc waa amul benn sikk moom Cheikh Omar moomu bi nga xamee ne Cheikh Tijaan am na am na dund na ba ci maas ñaar téeméer ak fukk ak ñett booba la Cheikh Omar juddu dund na ak Cheikh Tidiane ci àddina daal fukki at ak juróom-ñaar yàlla def moom Cheikh Omar moomu moo tasaare wirdu Tidiane fii ci réew mi ndax ñi nga xam ne ci ñoom la wirdu wi jógee ci ñu jàppee ci Cheikh Omar lañ ko jëlee Seydil Hadj Malick jëlee ci Mayoro mu jële ci Cheikh Omar Alaaji Abdoulaye jëlee ci Amadou Muhammad ibnu Ibrahima al Fuuta Jali jële ji Aboubacar mu jële ji Cheikh Omar ñooñu doomi Sénégal yooyu soppi nañ kan xar kanamu taarixu Sénégal ci lislaam ak ci yoonu Tijaan ma ne ba Cheikh Tijaan dundee ba am juróom benn fukki at ak ñett la Cheikh Omar juddu Cheikh Tidiane génn àddina ci atam ñett fukki ci xarnu ñetteel bi bañ demee ba ci Cheikh Mamadou Hafiz def ci xalifaam Cheikh Mamadou Hafiz génn àddina ci atam junne ak ñaar téeméer ak juróom benn fukki ak ñenant bés ba bat yi génne àddina ca la alaji Abdoulaye juddu bañ ca tegee fukki at ca la alaji Malick juddu ñooñu lu tax ma di leen tudd dama ne soppi nañ taarixi Sénégal di solo lislaam ak di solo tariqa tijaaniya ku ne xam na ne ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñii mag ñun jot nañu seen dund xam ne tariqa tijaan tasaaroo ci Sénégal ci seen liggéey la waaye ko alaaji Abdoulaye nag yàlla may na ko mu jóge fi dem Fass kon demee jàpp ci Seydi Bachir maami sëriñ sëriñ fii toog jàpp ci Seydi Ahmadou Abdoulaye jàpp ci Seydi Sayid Safiyaani ak jàpp ci Seydi Ahmad Sukayri Abdul Karim Diniis ndax booba moom ijaasa gi ma am du litlaax buñ tënk la ba mu demee Fass la soog a am ijaasa litlaax yoonu Tijaan bi mu dellusee fii lijaasa ci yoonu tijaan ñaari façon la mën nañ laa may lijaasa ngay may wirdo rek te mën laa def kenn muqaddam mën nañ laa may ngay may wirdo di maye muqaddam muqaddam bi ngay maye bi ngay may du samp muqaddam mën nañ laa may ngay may wirdo di maye muqaddam waaye ci àpp nangami muqaddam kuñ may nag nga mën a maye wirdo yi mën a sampi ay muqaddam ci lu amut àpp te muqaddam yi ngay sampit sañ a samp ay muqaddam ci lu amut àpp loolu la ñuy tuddee litlaax ci suñu yoon loolu Alaaji Abdoulaye ci yoonu faasam bi la ko sogaame ba mu ci bàyyi ko jóge faas ñibbi Tiwaawan la jaar mag ñi benn benn la ñoon ndax lislaam rek a doon seen soxla ba mu jaaree Tiwaawan yàgg na fa biit Alaaji Malik téye ko ne bu mu dem xamutoon sax lu tax mu téye ko te ba mu fa jógee lañ soog a lu taxoon mu téye ko fa ko téye woon ne ko dañuy gàmmu gaa ngi waaj a ñëw na nga ñëw nga gàmmoo ci man fekk na booba Alaaji Abdoulaye am na lu doxoon diggante ma français yi ba mu génn réew mi toxu ci réew Gambi mooy lan mooy français yi dañ ko ne woon na joxe Alaaji Mamar doomam ak Alaaji Babacar ñu jàng école mu bañ ne moom soxlawut ci nguur français dara soxlawut doomam nekk fonctionnaire dafa bëgg doomam di jàng di liggéey di topp yàlla kon nag soxlawut mu ñu jàng tubaab bàyyi ko mu dañ ko bàyyi mu jàngale ay doomam li nga xam ne moom la xam ñu dajoo ci ak moom mu bi nga xamee ne dellu dina jóge faas ba tiwaawoon mag ci seen mbaax rawatina ñooñu yàlla alaaji Maalik dafa woo booba avocat bu ñuy wax Carpo Carpo moo jëkkoon a nekk député fii ci Sénégal moom la Blaise remplacé ne ko bindal ma leetar gouverneur juróom fukki dërëm la ko fay ca tàng booba sama baay yëgut ko de yi Maalik ko fay ci poosam ne ko bindal ma borom ndar ne ko alaaji Abdoulaye ngi fi jaar di dellu angale te daal buñ nangu mukk mu dem nañ ko téye mu toog fii ci Sénégal ni mu gën a ji diine ji loolu la gën a noonu la gën a ji seen àddina ji loolu la alaaji Maalik bind borom ndar borom ndar di jox bi ci Kaolack ne ko bu fa alaaji Abdoulaye jaaree nañ ko téye ak lu mu la mën a jaral rek bu mu dem bi nga ne tàggu na alaaji Maalik mu ko ba ci gosaas gi ne ko dama lay ñaan soo jaaree Kaolack na nga nuyu commandant cercle ba commandant cercle kenn du jaar ci réew di ko tekki ne man xaw ma sax luy commandant cercle waaye loolu la ma wax mu ne bu ñëw laaj ñu ne ko commandant cercle bi fi nekk mooy borokaar boobu moo toog ci place Mbaye Diouf mii fi nekk tey te sama bàyyi demee nuyu ko mu ne ko yow day Elimane ma jaay wax na ci yow te ko tubaab commandant sangam wax na ci yow lu baax commandant sangam wax na ci yow lu baax commandant yëpp def nañ ci yow rapport yu baax waaye li moom Ndiaye wax na ne da nga bañ français mu ne ko loolu amul man diggaale bu ma français yi dara man liggéey ak jàng ak topp yàlla rek sama soxla jaa dina loolu tubaab yi yàqaluñ ma ko man di ma sama soxla nekku ci ma leen ko lu yàgg yàgg du ma bëjog ñoom li am nag mooy eh, noon nañ mën a sama doom jàng tubaab te man booba sama doom mu jàng li may jàng moom gën a loolu ñu amale woon ba ma jóge fi mu ne ko loolu nga wax na ko bind ma def ko fii ñu bind li nga xam ne moom lañ la tosal ba ku ñëw bu gisee li nga xam ne mooy liñ la tosal gis li nga xam ne mooy dëgg gi na nga toog fii ci Kaolack nag ma may la kër ci Kaolack mu ne ko man mënumaa dëkk réew tubaab fii ci Kaolack day day rekkee sama métier gouverneur mu ne ko dëkkal fii ci Kaolack borom xam-xam nga borom xam-xam yomb naa xamal làmp jege ko moo gën sori ko so siñ la sosal ba nga génn réew mi ci lu du dara soo nekkoon ci Kaolack du mën a am toogal fii soo fi toogee tey njaboot di liggéey ci taax yi su nawetee may naa la nga dem ci kaw gi bay sa tool ngay ngeen di am xaalis noor ak nawet ay sama bay ne ne nangu na mu ko wëral foo bëgg ci kaw rek may naa la ko e mu wër ba gis fii booba kër yi dëkk bi mu nga toll ci tali ba lay jëm kër gouverneur ko dale fii ba foofa kër amul sama bay ñëw tajj fii ci at mooma la rëdd saawe bi fekk ba mu demee Faas yóbbu na buum natt saa wee sax tijaan ba jafaas nam day bi ñëwee natt lu day noonu mën na tabax lépp waaye mu jëriñ toon loola tabax li mu ci mën a tabax mooy tabax boobu nga xam ne moo am juróom benn fukki at léegi moom lañ doon eefal ba yàlla sottal ko ci suñ jamono ñu nii yàlla def na ñoom ñi nga xam ne ñoo doon jeexital yoonu tijaan ba mu agsi fii muy ki ko dikkee di Cheikh Ahmad Tijaan radiyallahu anhu ak alaaji umarul fóoti yi ak Cheikh Mamadou Xaafis ak alaaji Malick ak sama baay ñooñu ñëpp seeni dooma ngi toog tey ci jotaay bi alhamdulilah ñu ngi xalaat zaawiya bi mu sotti ci nii nga xam ne ne lañ soo mbébété woon loolu moo tax ma ne ñu ñëpp war nañoo sant yàlla waxtaane nag man du ci gudd maa ngi am gan yoo xam ne dana jafe ci taarix seen ak daje Eh, ñoom ñëpp ñu ngi fi ci nekk gis ko njariñ la dégg ci moom njariñ la danga leen bàyyi ngeen dégg ci ñoom muy Serif Seydi Mouhamadul Habib ki nga xam ne mooy sëtu Cheikh Tidiane ki jiitu yoon wi mi ngi fi Serigne Mountakha Tall di sëtu Cheikh mi ngi fi Alaaji Abdul Aziz ki doomu Alaaji Malik di xalifa mi ngi nii toog eh, bëgg naa Serif waxtaanal leen su àggalee xalifa Alaaji Abdul Aziz waxtaanal leen dangeen ci am njariñ su loolu sottee nag ñu ñaanal leen yàlla lu jëkk loolu maa ngi gërëm ñëpp di gërëm mboolem ñu fi teew rawat na ñi nga xam ne ñoo fi teew ci wàllu nguur gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu